di jafe-jafe jigéen yu Ross Béthio ba ñëw rek taxawu leen ci wàllu wiile. waa ndaje bi li ñu ci mën jàpp dabord abord mooy euh, sentiment de satisfaction bi nga xamee ne que wax dëgg yàlla ci euh, feebar euh, bi fi ñëw ñu xeex mbas mi. ministre bi nga xam ne moom la président Macky Sall dénk microfinance am benn ndimbal bu mu jagleel mutuelle de solidarité de femmes de Ross Béthio muy ndimbalu juróomi million muy lu am solo. wax dëgg yàlla ñu ñu am ci mbégte lool te loolu aussi ñu jox leen ko parce que wax dañ dañ leen ko njëkkoon defal ñu ñu ñu liggéey ci ba am ci waaw góor liggéey ci ba li ñu leen joxoon ci juróom million ñu dem ba mat fukki million gi juróom ak lu topp wax dëgg yàlla bi ko ministre bi yéegee mu ne ñii de ku leen joxaat lu mel noonu danañ dem ba bientôt ñu mën a yegg juróom fukki million suñ ko bolé ak juroom fukki million yi nga xamné financement bu ñuy wajé jot la aussi bo xamné mo leen ko digoon dañuy japp rek ne que dal jappalé nañ leen ci lu am solo ma ñewoon tay nak pour d'abord jaajeufal leen jaajeufal leen gërëm ministre bi ci seen karam ba paré bok ci nañu eh, nañu taxawalé kurel yi nga xamné ñoo ngank mutuel bi di juroom ñett eh, groupement ak ñent juroom ñett fukki groupement ak ñent ñu ñu ñu ñëw taxaw euh, bokk ci nañu leen di joxe. am Adja Mbengue Yade mooy présidente bu MISO moom ma ngay rafetlu jëf jile te it di ñokk ñaax ak ñaanal ñi nga xamante ni ñoo ñoo di madame la ministre Zahra Iyane Thiam ak le maire Amadou Bekay Diop. Pluviométrie assez importante qui se manifeste nous avons essayé effectivement de prendre les devants. da kay jom mom ken mënu ko fay dañ koy baye ak yalla rek yalla mi am fay yalla naka fay lim ñu indil nak mom jëkkon naka indi mom xaalisu bopam daf ñu 5 millions lim ñu ko joxe ñu liggéey ci mu jur lool ma sha Allah am ci 10 millions ak juroom ak lu tek legi sara ya ci am ñew fi gis loolu saytu loolu wax ko ko mu ne ah ñi def mo leen dimbalé dina baax mu ñëw fii dig ñu dig ñu juróom fukki million ne léegi dinañu ko financer pour ñu liggéey léegi bi nga xamee ne yàlla def na feebar bi ñëw mu ni léegi sama jigéen ñii kat duma leen bàyyi ba tey naa leen jox juróomi million mu may ñu ko moom la ñu dolli si xaalis boobu tey ànd ak groupement bi di ko liggéey groupement bi nag dekk na juróom ñetti fukki si juróom ñetti fukki groupement dégg nga ak lu teg ndimbal ndimbal loolu ñun dañu koy sant yàlla rek julli si yonent bi salallaahu taala alayhi ndimbal boobu dañ koy téye di ko di ko financé jigéen ñi comme comme ni ñu demoon ci bu Amadou Becaye Diop rek di ko financé waat jigéen ñi ñu ci liggéey ba Saara ñëw ak juróom fukki million su ñëwee dina xam ni jigéen nii mu jox mat nañu jox ñu takku si di liggéey li nga xamee ni Becaye wax na ko tamit loolu tamit ñu ngi ci ñu ci def ay formation pour ceeb bi ak ak yeneen dégg nga di si def di si def di si def lépp lu nga xamee ni bëgg war nañ ko def ay araw cere lépp ñu def ko pour di ko jaay ba ci bitim réew sax mën nañ ko fa te loolu yëpp ci ci garage Amadou Bécaye Diop la kon ñoo ngi sant yàlla li julli ci yonent bi salallaahu taala alayhi wa sallam di ñaanal Amadou Bécaye Diop ba tey ci ay kàddoom moom Amadou Bécaye Diop muy xamle rek nii li mu fas yéene def rek mooy jàppale jigéen ñi ngir seen kuréel googu gën a dëgër te it fexe ba mu gën a ñoŋ jëm ca kanam li ci top bokk na ci euh, gën leen tagat ci ñu mëna taxawal ay wut am wut ay jumtu kay di mën di jël ciép bi nga xam dañ koy bay fi ñu jël diko diko transformer di ci defar ay ay euh, ay araw araw ciép ay ciéré ak yu bari yoo xam ne mën nañ ko ciy defar dugal ko ci ay euh, mbuus yu rafet ay sachet yu rafet di ko jaay ci chain de distribution yu mag yi nekk si parce que damay gis seen i moroomu jigéen yi nekk ci yeneen gox di ko def ñoom nag comme jotoon nañ ko fi def ba vraiment produit yi mu nekk produit de qualité dañ tàggat pour que ñu mën ci def lu baree baree bari ñu mën ko wasaare ci Sénégal yëpp bokk na ci ñu tàggat leen ñu boole na ak ay ay animatrices ay formateurs ñu jàngal leen aussi yeneen métier yoo xam ne day gën a tax ñu gën a yaatal seen seen seen comme seen euh, yokk seen koom ci askan wi. ñetteel bi nag mooy financement bi nga xam ne ministre bi fii la toogoon digg leen ko mu nekk ci yoon wi man maa ngi koy suivre ñu mën a daal leen préparer pour que su ñëwee ñu mën ko yore ci anam bi gën rafet addu sax nak ci walu mbay mi nga xamantene modi mbayum ciep fi ci walu ak tollu way wi fi nga xamantene ñi ngi tollu ci walu ngop mi sax ak jafé jafé ya ca ne ma ngay wax rek ana yan jéggo la ca mairie bi mëna taxawé xam nga mairie rosbe ci damay faral di wax nak ñun duñu duñu acteur ci mbay bi dañuy def rek moy fexé bu nek euh kurel bo xamne dañuy dañuy teudde njaxanaay di deglu di xol jafé jafé yi nga xamne war nañ ko mëna jëlé fi yobbu ko ca gouvernement bi waxtane ko pour ñu jappalé len je pense que am ay peu choses ci jafe-jafe ñu ci amoon ñu dem gis ministre de l' agriculture waxtaan ceeg moom ba saafara am na ci. Euh, bu yàggul it gis ngeen ne que euh, gouvernement bi am na ay moissonneuse batteuse yu mu jagleel département bi mu am ci ñaar yoo xam ne sax dañ ne ñooñu ay ndaw lañ koy jox donc loolu aussi bokk na ci lañ doon xeex pour que ñu jàppale ndaw ñi jàppale euh, producteurs yi ñu mën a am yenn jafe-jafe léegi nag wax na wax naa ne que li taxoon ñu arrêté woon journée de promotion du riz yooyu nga xam dafa amoon solo xëj na dañu bañoon politique yàq ko waaye comme cadre de bi ñu taxawal am na njëriñ mu ngi liggéey liggéey bu mucc ay fii ci Ross Béthio danañ ko jëlaat danañu jëlaat euh, journée yooyu di ko defaraat jaarale ko ci cadre bi euh, ba daal euh, wax dëgg yàlla ñuy mën di waxtaanee foofu li nga xam ne suñ ko joxee état day xam fan lay teg tànkam pour jàppale baykatu waalo bi